waa xale yi maa leen woowoon dina doon sàkk waxtaan si yéen ndax euh, gannaaw ba seen papa dëddoo ba tey bàyyi na fi alal ju bari te loolu ump leen xam ngeen lépp kër yi bari na oto yi bari na entreprise baa ngi fi waaye nag xam naa ni yar naa leen njar goo xamante ne xam ngeen fi ngeen di teg seen tànk mm-hmm. ndax xam ngeen ne maxtaar mi mooy seen mag te taaw mooy bàyyi ganaw sen baye nak jóge na fi moko wara war man mi sen day sax moy sama kilifa ma bëgg nak ngeen top ci ginaaw fa leen seen bàyyi mom mu len fa li ngeen daan diisoog seen sen di diko waxtaan ak sen baye wala sen baye di len ko fajal mom mi ngi fi bo leen jaxlé man ngeen bañ ñew ci man sax ngeen dem ci maxtaar ndax moy taw ñeuka a judd njëkk te yar yar go xamantane dina len ouf ndax xam na seen bàyyi taxawaay bu mu amoon ci yéen ma bëgg nag ngeen jël lépp teg ko ci loxoom. Euh, ump la ni kii man dama koo bëgg te dafa sori ci man trop takk bi nag gaa dëgg la mais ku nekk amul lu dul ay mbokkam ak ay xaritam te kii ak ñu naa koo takk te duma defar bésam ba baax. Euh, li ma bëgg mooy dal ci projet bu baax bu am doole. Mm-hmm. yaa ngi may déglu. Euh, ma ñëw defal ko ci bés boo xam ni digg cees fii mm-hmm. xam naa ne même bu ko fi nit dee amit mm-hmm. bu ñëwee benn duñ ñu ñaar. Euh, ba tax na nag ma bëgg nga dimbali ma ci jàppale ma ci sax ci ay noppam di xam ne man dama ko bëgg yemale ko kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn xam nga lii rek dafa neex. daba. baxtaal yaa ci topp say raq ngi wanal bon exemple hmm. toppal sa ginnaaw mag na mu uufee say raq seen mu leen uufee yow nga jéem a uufee noonu say raq di leen digal lu baax di leen wax lu baax loolu dalaa soxla si yow daba maa yow tam nag loolu amul solo lii kay yaakaar naa ni sotti ceeg def ci la ñun mooy sunu mag ñu bokk ndey ak baay wax fa dëgg neex yàlla entreprise yi mi ngi ciy doxal yoon loolu kay boo tëddee nelawal li war yëpp dina ko def fii amul luñ fii lu ñu fii xalaat man ba ngay wax sax maa ngi tiit yaakaar ne sax dara dafa xew loolu rek soo tëddee nelawal ñun moom bu ci am sax sikki sàkk xanaa loolu booy ndax géej gi am na ndox nag yow maa nag ah ñun mataar duñ ko jiital pare di ko faqasal de yii xalaatuñ. ma wuyoo sa sa sa sant loolu laa bëgg. dëgg lu ma mën ci am wuyoo sa sant moom ko gënal. moom ko gënal. dëgg la waaw bu may def effort yow aussi da def effort. dëgg mais lu jot yomb. loolu kenn werante ko. li ma ànd ak yow ñaanuma yàlla sax di ko àndaat ak yow te ñëwul sama kër yàggatul kii lu mu doon doon xale xam na fa ma toll ci yow moom mi loolu leer na ko euh, léegi yow am na ay tuba yu ma la jëndal ak ay kii ay mbubu lépp naay sax jënd naa yu mool mi ngi fii ma bàyyi quoi yaa ngi dégg même téléphone sax am na kóol ma la jëndal mu ngi ci sëriñ Sering bi ne ville. kon daal bàyyiwoo jën na laate ba tey. non mais kii tamit kii. bàyyiwoo jën na laate ba tey. xale yu yi ñoo mën sama rakk la. waaye léegi boo may takk lan nga ma war indi. yow loo yor jaay nga ko loo yor jaay nga ko. mais loolu dafa tax mu jeex. sama xol bi xëtër yi daf ko bettil rek gis nga wax naa mënuma ko. non mais tam wuy ma xam nga kii xale la te et puis comme sa rakk la rek fu man damay def li ma war def. dégg ma boo demee ville ville mhm. place sëriñ nga ne ko mu jox la téléphone boo fa jugee nga dem ci Idda Idda mu ngi fii euh, boo jugee rond-point euh, parcelle bi voilà balaa nga fa àgg à droite Idda mu ngi foofu dinaa la jox numéro boo demee mu jox la tuba yi ma la jëndal ak boo di yéeg yëpp mu ngi fa nga natt ko bu la ci jotul na nga bàyyi ko fa mu jox la yeneen mais man am na yu ma sama choix quoi préféré mu ngi foofu. waaw li de bettu ma ci yéen. ndax yar naa leen fa ma leen war a yaree. def naa xam naa ne foo leen dem di ngeen fa mën a nekk mhm. wax ji bettu dafa fekk ne rek boo yoree njaboot day tombe ngeen di toog di waxtaan di diisoo ndax réeroo amul ñàkk waxtaanaam te it dafa bari doole ma bëgg rek ngeen jàmpate seen biir waaye xam ne mhm. maxtaar mooy mag te mooy seen taaw te it bu leen ko jiital mukk di ko fakastal yàlla tere daf leen lool seen bopp mhm. man mii seen ndey la sëgam maa topp ci ginnaawam waxatuma nag yéen yaay wax ji yëpp intéressé ma xam nga moom mooy intéressé fa wax ma daal xool nu ma tëbalee ma dem quoi man dama sonn sa life bi fii voilà. te Ndiogu sama sama caat bi caat xaritu yaayam yow Ndiogu xam nga yow sa papa da laa bëgg ndax yow baayam la la tuddee moo tax li mu la bëggoon rek man bëggee naa ak fu mu ne nii du ko raw Ndiogu tey ngaa jàng indi ma diplôme. yaay pourtant maa ngi jàngale. États-Unis ay rey rek la. ay kay yi ñoo fa nekk di wax la waa foofu dara nekk fa yaay ma caat xaritu yaayam léegi nag jàngal boo jàngee nag ba indil ma diplôme yi dinaa wax maxtaar mu yóbbu la loolu moom man moom maa si taxaw ma bu la dara naqari waaw ah, kon baax na waaw jàngal rek indil ma diplôme yi man yaay sama xarit jeex na man bëgguma ngay ngay mer jeex na <laughs> ah boo paree nag ma jox la nga door caayin bi nag am benn waaw te bu mu wex nag daan naa kontaan mais tey da see rawati dëgg dëgg parce que du ma ne lii gulet parce que yàgg nañu defal tranga suñu famille uh-huh. soit muy sama papa muy sama mag muy man dëgg la kon tey jii soo nee jëndalaat nga ma téléphone. Mhm. ak ay yére ak dama ci gën a sant yàlla suñu borom. Mhm. parce que xëy na lépp euh, sama sœur moo tax. dëgg la ak mbëggeel ak mu la toll lool moo tax ngay financé li yëpp ci ñun. non eh xamalal la. lenn rek euh, laa leen di ñaanal daal. yàlla la fa leen cat. amiin boole xoli. amiin waay. def mariage bu toj. cëm. non xam nga ya, ni kii kii yow njaboot bu barke soosu si ba ma am si turandoo yow ya da ngay am turandoo ah. yow ya, boo kii boobu turandoo kenn du am mais wuy ma yow bu ragal lool mel ini ni am nga parce que da ngay am turandoo yow waaw ci yoon parce que sonn naa ci de yow ci boppam ya waane da ngay am turandoo de bàyyi xëy yéen ñaar yéen bëgg a dama leen bàyyi dañuy def ba mu sax man bu ma ci du sama xel de ki moo la gën a muus waaw loolu ma am na moom kii moo la kan, gën a de taw am xel voilà <laughs> mais man rek la bëgg nag. non da ngeen a bëggante nag. jàmm la xanaa sama yaay fa feebar te yëguma ko. sama yaay feebar dara jatu ko sama kër ba jàmm laa jógee mu ni mu wan ne ma ñu ak Matar bokkuñu ndey ak baay. yaa ma fen est ay fen. loolu mënuma kaa gëm sama bàjjen dafa bëgg pour yàq suñu famille bi rek mais sama bàjjan moom bu ko déglu man bëgguma lii. sama bàjjen du waxantu te lu mu wax am na fu mu ko teg te loolu moo jaxase sama xel bi dama bëgg nag wax ci yam fii parce que kooku dafa bëgg a yàq suñu famille sama bàjjan xam nga ko dafa mën a yàq te tamit sama yaay bu mu ko yëg lii nañ ko gas suul ko bu ko mës a wax feneen parce que Matar mooy suñu taaw ñoo bokk ndey ak baay caat amal xel am na yoo xamee ni nag bu ko def sa bopp wax naa la ko nag bu mu génnaat sa gémmiñ su boobaa man ak yow suñu diggante du neex te sama yaay nag bu mu ko yëg sa bopp boobu nga war a wat ah waaye gisoo lépp rek pour yow bis boo ma takkee ba ma bale seen kër te nga xam ne lépp dëgg la si te te te te a kontaan maa la gën a kontaan oui nga génn moom wax dëgg yàlla nooy nepp la def uniquement rek pour yow ndeysaan pour yow rek sama ya cas cas cas yow la ak yow doomu yaay ya, daagu sama kër eh, amul keneen ko fay daagu bu dee ay nax neex na te dëggantaan jëm waaw loo yore nii lii de tisi la kii la ñaw waaw sa waaji nu mu tudd baali baali baali daal dem place am ko fa di ci wax xam nga man pour man lu jekk rek ak lu rafet pour yow la jekku ci ci ko ku kan, eh, baax ndax xamna ci jigéenam la jëm yow la koy indi léegi nak waaw nena lo am rek indi nonu wa may amee mille indi baari ma sëñ Abdou Karim rek yu bax yu jek lay def way gis nga lii yow la jek dama jël xam nga lu son tissu yi dal yi chaîne yi ceinture yi lépp laa xam nga luma bëgg nga tak dama son tak ma mais yow lu jëd yomb dama ne tak ma ñaata at lu jot yomb. ba léegi doo jël lii quoi. dama ne jëluma sol ko te boo ko solee mu jekk dina jekk dina rafet. ok lii lu mu doon wala yow amoon nijaay ana sa papa je suis ci lii laa sonn doxaan gu dul jeex sa der di yàq ñu lay seen ngay dugg ak génn di vaillé lii lan la. yow dafa am leneen lu nekk sa xel lu dul ma takk la. ma nee la xool loo ci wax rek loolu la. yow fañ nga ma wax lolu ah yow ya waru la xalat lolu sax yow lan yow nga bëgg ma xalat ko mais lu jox dina yomb dina la teg dinaa sonn mais mëna jël li nga jël ko jëluma doo ko jël jëluma ok li lan la li de di ko jël te ya koy sol soluma ko ci yow la jek solal aba maa ngi nii rek nga don na namoon naa la nag. maa fi ah ba mere woo sa bàjjen. Hmm? ah déedéet déedéet iya, bàjjen bu ma mere te dama la wul woon dama bëggon ñu waxtaan. ah man de da am lima la bëggon na wax te da melni waxon na la ko sax ba pare ana waxat rek ndax xamna naa ne la wax gëmoma waye waaye teewul damay wax rek ba kéro nga may gëm doom ndax man seen jamm rek la bëgg maak seen papa ñoo bokk ndey ak bay ma leen soxoree dara man dal seen jamm rek la bëgg waaye dama laa bëgg a xamal ni li ma la waxoon démb moom laa lay waxaat tey euh, sa papa yéen ñett ñi la am yaa ak sa rakk yee yaa ak sa rakk ñaari rakk yee njoogu ak mati waxoon naa la ko fi waaye dégg naa li seen yaay wax yëpp nee la seen alalu papa man soxloo ma ci dara ndax manqué wu ma dara macha allah yàlla may na ma sama teranga seen mag gee ak bàyyi ngeen yaay ngeen bokk ak moom ak moom bàyyi alal gi seen alal la tey bu alal gi doon sëdde buñ ko doon sëddal xanaa njóogu mi nga xam ne mooy euh, caatu kër gi kooku moom sax moo koy gérer ndax moom la moom moo ciy góor yow jigéen nga sa wàll bëriwu ci li ma lay wax nii nag bu dee gëw bu dee du dëgg rek yal naa fekk sama mag ca àllaaxira mag sama ma nga fa mm. sa xol ma fa dëgg la dëgg la Eh, boo gisee ma woolu la. Ah, waaw keroog mau faa ñëw. mu uh-huh. def ma affaire bu ma metti. Uh-huh. trop trop trop mu metti ma. Uh-huh. dama ni woon sax jarul ma lay woo. mais damaa dem ba ci biir ma ne il faut moo la expliquer la ah, ok parce que jënd sama benn yére bu rafet. indi ko ci kër gi. may ko ko mu ne buggul. delloo ma bi def ma lu ma metti quoi vraiment. mais teraanga teraanga moo koy moo koy fay. man su ma rombee ñëpp. Uh-huh. ah ni man yàlla ak moom quoi man gisuma beneen jigéen bu dul moom. Uh-huh. kon moom loolu da koo war a sàmm. mais vraiment daf na ma lu ma metti trop. te su ma nee bugguma ko. Uh-huh. waxuma dëgg. lii la ma def. Lol do yoon man kay moo tax ma gëj laa gis kër ga. loolu la du leneen. ma ngi ko koy laaj mais moom nangu ma expliquer clairement. non du la expliquer dafa ñaaw trop. ah loolu moom du yoon moom fu dëgg yàlla moom loolu du yoon. fii laa jugee dagg sama liggéey. nit ñi di ma woo kaay liggéeyal ma kaay liggéeyal ma bàyyi lépp. jël tisi bi ñëw pour bëgg xolam gën a sedd ci man. noonu la ma delloo tisi bi toroxal ma ni xaj. waaw loolu moom war la koo def moom parce que yéen même bu dul aussi tamit yàgg ngeen. man de bàjjen maa ngi bëgg jommi ndax man boo expliqué ba teg bàjjen ma jox la dëgg bi sama yaay expliqué ma jox ko dëgg bi ndax lii man fi mu ne dépassé ma mënuloo comprendre comme nag jaral na la bàjjan nga wax bay waat man lii dinaa ko jéem a gëstu ndax su ma tëddee sax mën a nelaw ndax man damaa jommi mënuma sama yaay teg te la mu wax tamit lu leer nañ ñi la yow tamit nga bëgg a wax xanaa kay li may def ma jéem a seet si papa ba xam. waaw baax na ba tey. mën ngaa dem seeti sa papa Zal ba xam moom mu expliqué ndax ndax moo ak sa papa démb la woon moo ak sa papa fu ne jaar nañ fa moom dara ump ko ci problème sa diggante ak euh, sa yaay mën ngaa dem ci moom nag mu expliqué la li looy mën a dégg ndax man ba tey daa mel ni li ma la wax gëmoo ko. ah man kat bàjjen nu ma koy gëmee sama yaay dama gum jëmm wax li muy wax teg ko jur ngi ñun ñii. ah man mii kon li ma wax ah! du dëgg. ndax maa fi jiitu sa ndey maa fi xam sa ndey fii la ñëw fekk ma fii. déet wala maag yaag sama yaay xëy na da ngeen am problème bu nit ñi yëgu boobu doom waxuma la waxu problème man waxu wax ji laa lay wax waxu waxu waxu seen seen seen doom baay jii tëkk la fois passée maa ngi koy dégg muy expliquer sam papa mm-hmm. seen problème affaire yooyu dëgg la affaire ay nanga ko takk ak du genre dëgg la te sëy mi ngi dépendre si yàlla suñu borom noonu la deme te fii ku sa biddiw fàq rek mm-hmm. yaakaar naan nga dem ok te moom li mu am noonu sax am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si relation am voilà voilà parce que tey jii relation yi léegi benn góor defalatu jigéen dara noonu la demee or que sax léegi jigéen ñi sax ñoo yëkkati seen xaaj di ko jox góor tey ji moom li mu am li lépp tey si yow tey mhm. man mi dara xam ñaan naa am copain bu may defalee noonu non si si li mu am coow dafa jafe xam dafa am beneen far buy ñëw ci kër gi wala keneen ku ma ko gënal non non non loolu lay gis non ñu njaay lañ sant buñu jàppee jàpp nañ mais nag lan nga bëgg ma def ko baa jën yow man kay gëstu laay def jusqu'à preuve contraire parce que man fi lii moom moom commencé na maa dépassé man de soxloo ma seen alal ndax sen bay lu ne la ma defal ci man ma ngi sama teranga man seen jamm la len bëggal ndax duma bay tamit seen yaay di doxale no xamantene du yoon ala gi seen alal fof yak sama yaay xana da ma am problème sa yaay amuñu benn problème ndax man posé na ko question bobu lu ngeen jek say bëgg nono ni, han en tout cas dal lima len wax dama bëgg nga dem gëstuwaat ko bu baax ndax deg nga baax lima la wax te mënoo maa gëm nag waaye li ma bëgg ngay dem ba sa papa Zal mu expliquer la lii. baax na waaw dinaa ci bëggee lu leer baax na. bàyyi aussi tamit bàyyi nañ. man daal yow sama rakk nga. Uh-huh. Euh, sama soxna nga. parce que su ma ko takkee. Uh-huh. di nga jàpp ci sëy bi loo doon doon doon gune. Uh-huh. léegi nag li ma bëgg mooy comme sa sœur la. waxtaanal ak moom. man moom laa bëgg moom laa gis. dama ne woon sax dootuma fa ñëw. Ah, mais dinaa fa ñëw ndax yow. amul benn problème dinaa fa ñëw. su ma àggee ni naa waxtaan ak moom. waaw te yére boobu mu nga ko jox mu delloo. ba léegi mi loolu du yoon. mi ngi fi léegi soo paree yére da nga koy jox. dinaa la ko jox. su ngoonee dama fay jaar nga jox ma ko. ok après man ma jox ma dem amul benn problème. parce que li mu def moom du yoon moom loolu lii daal la def. lii doo nga tax ñëwatuma fa. lii kese la du leneen. waaw léegi daal yow. Mm. Euh, nañu def noonu quoi. si amul benn problème. Euh, Lag boo gisee ma wóoru la nga toog nit dama cee soxla ngor ak gore bañ a tooñ tamit loolu dama koo bëgg ci nit euh, Abdou Fall dama koo gëj a gis ci kër gi trop te umpale woo ni man ak baayam ni ñu mel ma bëggoon a xam lan moo waral ñëwatul ci kër gi waaw papa man xamoon naa ne sax loolu nga ma ko laaj mhm. Abdou Fall sama digganteex moom dara ump la ci. Hmm. fii ku nekk ñëw na fi dama koy rejeté dama koy dàq. Abdou Fall papa mënuma dëkk bi kenn kenn amatul loo sol jënd na lépp indi ma. alhamdulilah jënd na lépp indil ma. Hmm. papa bul wax alhamdulilah rabil alamin xamal na laa bëgg Abdou Fall mu taq ma dama sonn ci dàll yi yëre yi tubay yi greffage yooyu laa sonn dama bëgg na ma taq taquma mu toog seen kër man maa ko fi interdit. parce que tamit amna lo xamantene man duma ko defate ndax tay li may wax sax yow la waron papa yow ya waron wo Abdou Fall xamal ko carrément na deful la wala mu tankam euh dama bëgg soy wax ak sa papa nga wañi sa degré touti parce que lo bax lu ne meuna ko koo ah. papa dret mo for rek. jappal na yaa ma rek lu ci yow rek mo nek ci man nga jéggal ma eh, waxuma dara dret di nek foofu fi la ko ha fi la saxé kon légui xamal luma bëgg li nga wax lér na rafet na mais nit. booy wax ak moom dafa am niveau booy tollu di ci wax ak moom nga wax ma ma ne alhamdulilah santal yàlla comme mi ngi bëgganteeg yow bay wuti di indi di la jox am nañu ko amul. waaye papa mbedd bi nuñ may xoolee nag naan couple bii couple bii couple bii bind xale yi sax si ñun la ñuy jàngee bind. screen yëpp def nañ ko ci miir bi la dégg Abdou Fall la dégg Abdou Fall la dégg Abdou Fall. dinaa la nettali tuuti benn anecdote say nopp sa yaay bi ñuy bëggante. kuy ma fi jaara nopp munu ko am ci man yow tay yalla may la nga am far wulay indi do sant yalla papa kat bi dafa ne ca yeta <laughs> way ci ta wa wa waaw mais léegi woo ko nga naxante ak mom ndax baye man ni ma mel ak mom dara du ko yàq te sama dom nga sama xarit nga. papa bu teye fofu foofu. de li ma bëgg di mako defal. ndax moo tax man la buma teye fofu yaay sama taw waruma am lu may naqari ci yow. bu naqaree ci départ bi rek jàpp ni ñëpp am naqar ci ñoom. ah bu kon léegi yow yaay woo Abdou Fall rek ne ko ñëwal affaire la bu dikkee man li ci des dinaa ko mottal waaye man sama ngoon ak sama deretu njaayee. Eh, <laughs> xoolal baal sa sagu yi ngay def nag. jigéen ak sagam mais bu mu yàgg. wuy ma ni ngeen def ba doxalante yéen ñaar ngeen ko def ba bi muy def sa tiit naa ndax bi muy dem mi ngi ma naan yow xam nga ne. maa lay takk bàyyi naa la wala woo ko man tamit ma xas ko naa ko si sikkim a mu bàyyi doo ko wàññi li jeneen sikkim yow sa bàyyi <laughs> papa ko woo ko xay ma bañ cee feeñ wuy ma kilifa laa nag mënuma ko woo naan ko kaay doxaan si déedéet doo ko ne kaay doxaan si yow max yow xamante nañ xoolal wuy ma mënuma ko ne kaay doxaan si mais jigéen yow da nga amuti papa man damaa rëy nduru woo sa yaay ah sa yaay ay jamono ma musaana mer ba gedd puuñ puuñ ma ne ca yeetaa yaay garaaw sa yaay daf may xoolal ku may xool may mais yow lan la woo ko rek woo ko ne ko ñëwul nga wuy daa am sama grand boobu boo ma war a yóbbul woo kon xam naa ne loo boo ko waxee ab siw la koy def bu ko defee nag man bu ñëwee xam naa nu may def. nit ku baax daal da ngay am calcul xam nga calcul bi mooy lan na la dara yére greffage bawul dara. Mhm. mais xool man nii sa bàyyi. papa nañ man benn melo mii laa nekkee. nañ def secret de famille maax yow laa la wax. ah looloo la sauvé di ma sauvé de. waaw ah. bi da ñëw buy romb lu bon bon mu ngëbal ma dara kañ laa gëj a ngëb kañ laa gëj a ngëb.